yàlla loolu la gën a soxla ci at nit kuy dimbali doomu aadama tey nga togg dara jox ko doomu aadama mu lekk rek am na solo rawatina nag nga def si ñu bari bari bari boo xoolee tey fii ñu nekk fii tey kon du caaxaan du dëgg te nit ki balaa ñu koo xam moo nekk naaw yaakaar naa lii may wax nii tey ku fi nekk mbërum làmb rek di ko wax. démb dégg ngeen mbër yu bëri yu woote ñii ne moo leen jëndal kër ñii ne moo leen teg man kër gi ma dëkk tey jii ca Ouest Foire avance am laa ko njëkk a mhm. am laa ko maag Balla Gaye avance laa jëndee sama kër gi nekk Ouest Foire kon Gaston defal nañ li nga xam ne euh, te man it ma amoon nag moom relation yu sincère parce que pour sant Marigane ñëpp xamal nañu fa laa nekkoon ay njabootam fan la doon jàngee dem na ba man ak njabootam. ñoom ñëpp xaalisam bu ma gisee beneen doom ko moom moo doon sama féete bu ma gisee nii sax day sëñ ndax cër gi ma jox soxnaam aawam xam naa ko bu baax ndaxte boobu yàgg naa di ñëw foofu mais li ma la mën a wax si àdduna mooy nan ko ñaanal yàlla nan ko ñaanal yàlla yàlla yërëm ko xare ko àjjal fa mu jëm gënal ko fa mu jóge ndax mérite na ko te boo xoolee bis bu mu génn àdduna tey jii ak bis bu ñu koy denc nii ñu bésu si Abdou Lahad du caaxaan première muy guddi àjjuma kon yàlla na ko yàlla yërëm àtte ko ci yërmandeem di ko ñaanal jàmm ñaanal ko njabootam di ko jaale Sénégal gépp di ko jaale président Diakhar Faye bi nga xam ne moom moo jiite réew mi kon moom moo jiite réew mi foog ñu jaale ko ko jaale ko nag xaritam muy président Macky Sall di ko jaale kilifa diine yëpp di ko jaale mbër yëpp sportif yëpp képp ki sportif ak bépp sport ñu ngi la koy jaale di ko jaale yéen ñëpp presse ndaxte lii ngeen def tamit am na solo ndaxte nit génn àdduna ngeen def photo kenn ku ne di ko ñaanal kenn xamul ban ñaan mooy nag kon yéen yàlla na yàlla yàppale te it ñu delloo ci xel yi xam ni dëgg rek mooy wér ñu leen baal ak Sénégal nuyante nuyante jéggalante kenn ku nekk jox sa morom ñu jéggalante xam ne àdduna jeex na ba pare def lu baax rek moo am solo kon maa ngi baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp allahumma salli ala sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam su ma diggante moom mënatuma ko natta sax mënatuma si wax comprendre Modou Anta mii xam ne moo yor sidam saa yuy ñëw si man di ma defal interview day indaale xaalis bu may jox na ma makan moo loo bokk contrat bi. doomu garçon bu ñu naan Mouhamed Mengay yëkkati na lu mën a mat boloku billet si xaalis may ma ko na yem sama diggante man ak yow te xaw ma ko man ma la wax sax kii mooy Mouhamed barke Serigne Babacar mi ma gëm xaw ma kan mooy Mouhamed comprendre nga mu ne ma dama laa bëgg rek te yàlla tax. kon bu waajuram nelawee man mosuma yëg moto moto du ma du ma ko sax fooyee dama kaa ragal man maa ragal moto mais moto ànd dama kaa woo mu ne ma ñu ngi principal ñu ngi nii di départ foo nga jël moto ma woo sama waa ji alsaan mu ñëw jéeg ma si moto indi ma mais nag dañuy waxaat rek lii dëgg dëgg dëgg moo nekk nii dëgg dëgg mooy lii appartement boo xam ne yow kese doom du la fekk yaay du la fekk baay du la fekk yow sël mm-hmm. xarit du kenn ku lay fekk loolu mooy dëgg loolu mooy kër gi tax ñu naan sa kër moo nekk nii tey père garçon dem si ñu koy ñaanal yàlla bu ko cet jiitu si biir bàmmeelam te képp ku mu mos a seexal teraanga mosul toog wax mais ñi mu seexal teraanga nag tey lañuy wax loolu seede bi ñuy seede si moom nag dañuy ñaan yal na yàlla def yiw hmm. ba mu doon gan gi ñëw si armeel lu yoo fi xàjjee bay laajte kan moo desal ñu ngi koy ñaan yàlla xaaree ko àjjana fii taw si. est-ce que jotul tamit yéen yéen yéen ñi nga xam ne yéen ay mbër yi. jotul tey jamono ji ngeen xoolaat seen bopp xoolaat ñi nga xam ne si ñoom la fi mag ñi defoon ci lu baax ci làmb ji. jotul ngeen xoolaat seen bopp seen taxawaay defaraat seen toogaay ci làmb xasante beeg waxante lu ñaaw leeg tey lii rek ay dëgg. xam nga loolu yëpp mooy daa am ñu koy def mooy daa am ñu koy def man li may wax rek man làmb damaa jàpp ne famille la sport kër la. comprendre nga saa saa doom bi nga jur di ngeen di ngeen discuter comprendre nga ku ne xaw am nu mu mel yaay sax ak doom dañuy discuter loolu si dafa am sax si kër mais dama na père garçon kuy mbër am taraanga rek loo xam dugg na si biir. moo xam même bu la tëggalul jël na promoteur bi la tëggal. Hmm. soutenir ko. Hmm. comprendre tey nag dañ koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana yi fii taw si làmb nag mooy li ma si wax rek lii ku mu waarul la ne dootoo waaratu si àdduna comprendre ñu gas am kan bu mu xóot. jël per garçon di ko si dugal bu bëri dañ lay dugal bëri jël suuf si di ko naj comme lii ku waaru leneen du la waar xam lan moo fi ne hmm. dem jaamu ji yàlla comme kese amaatul leneen ku jaamul yàlla ba lii fekk la perte nga ak koo mën a doon comprendre ku jaamul yàlla yaa nañu yàlla may mujj bu rafet buñ yàlla ji jël yaa nañ fekk si lu baax comprendre làmb nag sport la métier la ñu ko doon def ñu koy def nekk si am ñu ko doon def nekk si Père Gaston gunge woon ancien mbër yi Père Gaston am na ñu mu tëggaloon i combat tey ñu ngi si biir suuf tey la leen fekki. mais dama ne 63 ans boo ko xisee ba romb nga. atu yonente ku ko romb gudda nga fan. dëgg la comprendre bi ku ko romb rek gudda nga fan. kon bu la yàlla defalee Père Gaston romb na atu yonente bi 63 ans Père Gaston yow romb na kon moom gudda na fan day ñaanal ay doomam sut kaw fan te njabootam yàlla teg si barke. métti na metti na mais ndigim yonante bi la yàlla jël keneen matul wax nañ sant yàlla xam ne lii lu du si àdduna du mos lii duñ tàggoo moom dañuy ànd ak moom juddu ànd ak moom di ko dund ànd moom ba yàlla di lem suuf si ah asamaan si kon maa ngi koy jaale képp ku axlu làmb di ko jaale famille làmb di ko jaale mbokkam di ko jaale makan ak famille méngeen bi yëpp di ko jaale mbokki njàmbur njàmbur yeeg yëpp percussion kenn ku si ne mën nga ko jaal sa bopp. dëgg kon maa ngi jaale ñëpp di ko jaal sama bop di la wax yàlla na ko yàlla xaare àjjana fi taw si yàlla bu ko cet jiitu si bàmmeel fi mu tëdd nii yàlla na doon àjjanaam ba karaay li yàlla di def. waa ba karaay ñuy fekk suñu borom yàlla nag àjjanaam commencé fi mu tëdd nii ba karaay muy fekk suñu borom. maa ngi koy ñaanal di ko ñaana ñëpp di profité tamit di ñaanal suñu sëriñ sëñ Babacar tamit doomam bi nekk fii tamit sëñ Ahmed si ñu koy ñaanal tamit yàlla xaaral ko àjjana yi fi taw si tey damaa ñëw armée lu yoof ñu ne ma sa sëriñ doomam a ngi comprendre man bu damaa yaakaaroon ne si Tivaouane la nekk mais loolu yëpp sant yàlla la ñu leen di ñaanal képp ku tëdd si armée yi ah foo mën a ne si àdduna moo xam si ndox moo xam si tàkka-tàkka moo xam yal la yàlla yërëm jéggal la xaaral la àjjana yi fi taw si yërmande yàlla dafa yaatu yaa nañ si àttee ñun jaajëf jërëjëf